ça, je voudrais rappeler encore une fois que nous sommes à un moment charnière de la vie de notre pays, qui demande la mobilisation et la vigilance de tous. Et c'est pourquoi ce front appelle tous les Sénégalais à rester mobilisés au nom de la démocratie pour faire face à cette forfaiture, pour faire face à, à cette balafre qui reste constante et surtout pour arrêter ce dilatoire qu'il y a et qu'on note de façon constante de la part du président de la République et de ses soutiens. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons aujourd'hui une instance qui nous dirige, qui est le juge des élections, le Conseil constitutionnel, qui a pris des décisions, qui, dans le jargon maintenant, nous amène malheureusement à des détails. C'est-à-dire, quand on est là à discuter sur des sémantiques, meilleurs délais, invitations, alors que tout le monde sait que quand on s'adresse aussi à pour parler au président de la République. Mais la décision était ferme et irrévocable et surtout sans appel. Et qu'au nom de ça, le président de la République devait être le premier gardien de la Constitution. Il devait protéger la Constitution de notre pays et veiller tout de suite à exécuter cette décision. Il nous a amenés dans un simulacre de dialogue les conclusions vont nous ramener encore une fois à saisir le Conseil constitutionnel. Donc tout ce détour-là pour nous divertir. Mais je voudrais dire syndicats, de ses collègues chefs de l'État de la CEDEAO, que cette invite qu'ils ont faite dernièrement les rend déjà suspects et que tout soutien qu'ils donneront aujourd'hui dans un processus qui est autre que celui qui a été édicté par le Conseil constitutionnel aliénera définitivement les Sénégalais de ces institutions-là. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les Maliens, nous ne sommes pas meilleurs que les Nigériens. s'ils acceptent d'être du côté de personnes la démocratie et nous nous aliénerons ces pays-là, ces organes-là. Et je voudrais aussi qu'on rappelle qu'au-delà même de la symbolique, la, du respect que nous devons au Conseil constitutionnel et de ses décisions, nous devons prier, pour la sécurité des membres du Conseil constitutionnel. De la même manière, d'ailleurs, il faut prier pour la vie et la sécurité des candidats, parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation on est dans ce pays mais veillons à ce que les soldats de la démocratie soient protégés par les Sénégalais. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir du 2 avril, que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent signer avec l'État du Sénégal dans cette configuration comprennent qu'eux-mêmes se mettent dans un cadre d'insécurité juridique. Parce que les pouvoirs de n'importe quelle personne, sauf celle qui sera élue par le peuple sénégalais, ces pouvoirs-là sont réduits à leur plus simple e-, et que la personne qui prendra à ce moment-là la décision de contracter avec l'État du Sénégal le fera à ses risques et périls. Et nous l'assumerons devant l'histoire. De la même manière que nous assumerons qu'aucune amnistie ne peut se faire sans reddition de comptes, qu'aucune amnistie ne peut se faire sans qu'on ne sache dans quelles conditions les Sénégalais ont été brimés, tués, et que leurs droits les plus élémentaires n'aient pas pu être assurés par ceux qui devaient le faire. Donc nous nous inscrivons définitivement contre ce projet en cours et nous nous mobiliserons partout où besoin se fera pour que la démocratie sénégalaise reste debout. mbokk yi man nii laa amoon pour wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di sant kilifa yi fi teew ndax ñoom ñoo waral tey Sénégal daje ndax lii mooy Sénégal ñu jógoon mooy F24 mooy F25 mooy mooy aar sunu élection mooy f cinq ñëpp dajaloo ne dañuy bàyyi. suñu ay yitte bàyyi suñuy jiital intérêt wu Sénégal ñun ñëpp ñu fàtte suñu bopp pour réew mi loolu moo gën a am solo donc li may ñaan rek sénégalais yi mooy ñu gunge ñu ndax li ñuy xeex ñoom ñoo ko moom seen àq la ak seen yelleef donc ñu dimbali leen que saa yu kenn ci ñoom wootee xam ne ni ñun ñëpp a woote donc bu ñuy tàmbalee sax mooy manifestation FDD moom la ñuy tàmbalee moom la ñuy wane ni Sénégal yëpp mobilisé wu na pour loolu di wax tamit ñi nga xam ne ñoo fi nekk di xalaat ni le 2 avril Macky bi dina fi jógee jógewu fi tànk taxawuñu pour mu jóge ndax ki ñu wax defal nga xaar fukki fan ak ñaar pour woote dialogue ngay xaar lundi pour ñoo ñu jébbal la rapport ngay xaaraat après pour joxaat ko constitutionnel conseil constitutionnel mooy amoo benn yéene pour def élection yi le avant le 2 avril ni la ko conseil constitutionnel sante donc may ñaan nag sénégale yi sàmm waa conseil constitutionnel ñun dinañ jéem a sàmm suñu ak ak suñu yelleef ak suñu sécurité waaye ngalawaay ñaanal leen waa conseil constitutionnel Sénégal sàmm leen jàmm ak salaam salaamaaleykum wa rahmatulah